tey ñoo ñëwoon fii tey ngir fas yéenee fàttaliku bis boo xam ne dafa daloon suñu kaw muy guddig la 16 jàpp la 17 moo am ay lakk-lakk yoo xam ne dafa amoon ci marché Ocass yu métti yoo xam te ni tey jii desiwaat mu bisu anniversaire bi ñu koy fàttaliku di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom ko fi bala mu yéene liggéey Serigne Touba mu defee ko ni mu ko bëgg te ñu ànd koog moom. di sant bu baax Serigne Mountakha ndax bi yëf yi amee ca moom lañ jiitu ji woon wax ko ko mu defal ñu ay ñaan eh, sàkk ay ndaw ñëw fi ñun. Eh, indi loo xam te ni daf ñu ko dimbalee ba tax na loola lépp bañ ci jotee it ba mu doon ab caabi la boo xam ne moo ubbiwaat lépp ba tax na mboolem commerçant yi nga xamante ni ñoo yàqule woon fi ñu toll nañ yàqule googee bis boobu di siwaat tey jii nag ñu di ko fàttali ko waat mu doon bisu naqaar boo xam te ni suñ kaw la daloon ñun commerçant yëpp bis boobu nag bu desiwaatee am loo xam te ni mu dalee suñu kaw kilifa yi nga xam te ni ñoo ngànk dëkk bi muy maire bi ak ba ci président de la République kenn ku ne yabal nga fi ndaw ñëw fekk suñu fii waxtaan ak ñun ngir am loo xam te ni ñu ko waxoon ngir ay liggéeyaat yoo xam ne yu jëm si waat ci marché bi la te boobaa léegi tey ji la booba laa gis ñu ci dara loolu nag ñu ñëwaat fi wi ngir tey di ko fàttaliku di leen ko fàttali te xam ne kat marché bi mooy dëkk bi ndax bu ne jumaa rek dëkk bi marché bi lañ ci teg te ñun taalibe bi amuñu lu dul marché bi ndax fii amut usine amut géej amut dara marché bi rek mooy li nga xam te fi lañ nekk di fi yaxantu kon boo jiyee dale suñu kaw boobaa ñu am ay diggé yoo xam ne war nañ ko fee defaraat dara jaar taxaw ñëw fàttali leen ko wax ni leen kat diggé yi nga diggé woon ñun commerçant yi ñoo koy xaar ba bi gën a a baax souvenir lañ ci gardé mooy ku euh, nga xam ne ku xool te fekke woon ko da xam ne biig suñu ginnaaw rek mooy ba Baye Mor bi ba léegi ñu lit yaa ngi fi ba léegi nga xam ni kon euh, sunu xel du ci jóg ba mukk waaye nag sëñ bi doole na sunu xel ba tax na fàtte nañ ko lu booba léegi ndax bi sëñ bi ñëwee jox ñu ñaan dénk ñu ñaanal ñu ba léegi ca la jógoon sunu xel ba tax na fi ndol ni képp koo xam ne yàqaloon woon nga li desoon rek mooy ay liggéey yoo xam ne ko doon xaar tey moom lañu moom la ñu fàttali kilifa yi nga xam ne ñoo ko diggee woon lépp loo xam te ni lu war a am ci marché la organiser lay laaj ndax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam loo xam te ni lu mu ci ba tax na booba ñu waxtaanoon ak ñun suñu bokk teel ba yi nga xam ne ñoo fi nekk lu mel ni Touba ca kanam defoon ñu ay plan yoo xam te jàppoon nañu buñ ko euh, ñoom ñu ànd waxtaan xool loo xam te jàpp nañ lu jëriñ dëkk bi la ak lu jëriñ marché bi loolu ci la ñuy woo kilifa yëpp laat ka bi fi amee kenn moo moo moo fi jiitu ànd ak gouverneur dem ba ca kanam xalifa général di murid

dëkk bi eh, eh, def ko fépp ba des marché bi te yaakaar naa bu rek marché bi moo topp bañ ko demandé yàgg na te gisuñu ci dara loolu it manque manque yoo xam te ni na ci li nga xam ne bi wàllu ko eh, laaj di ko xaar kilifa ci li nga xam ay digale yoo xam te ñoo ko marché bi nem lakke woon ba léegi tey ba léegi amul leneen lu ci dolli ko war wala jokkuwaat ndax tey bariwaat na ay casque ak mbaar yoo xam ne ko waat na ci noo xam ne nam njëkkoon a mel sax moo gënoon a yaraax nii mu mel nii te loolu lépp ñàkk organisation la xam la fi bëgg ñu indil ñu organisation boo xam te ni mucc ayib lay boo xam ñun ñëpp dañ ci gën a bopp kenn ku ne jariñu ci euh, xëccoo du mën ñun ñi nga xam te ay commerçant dañ nekk fi euh, toujours euh, maire bi day wax ni marché bi fayuñu dara

duñ fay dara centre commercial yi ñi ko moom ñoom ñoo war a dem ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñoo seen kër lañ ñoom ñoo ko ñoo nekk dëkk bi am propriété def ko kon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi dëkk dëkk bi ñoo war a dem ci waxtaan ñoom kenn ku ne la la war nga di ko def waaye buñ jógee rek dañu laytoon ni commerçant yi eh, centre commercial duñ fay dara te loolu ñun yoruñu loolu li nga xam ne moom fi ñëpp la defoon muy muy marché bi nga xam ne moo ko moo ko moo ko cadré loolu ñëpp gis nañ ko te loolu ñëpp ay contrat la ñu fay yoo xam ne kenn ku ne da nga ko fay bu dee patente commerçant yi amul benn bu ci rëcc ndax saa su ñëwee kenn ku ne da ngay def yow ñu fay la bu dee wàllu juutit camion yi nga xam ne ñoo indi marché dëkk bi kenn ku ne da nga jaar fay kon ñun commerçant yi ñoo ngi def li nga xam ne moo warloo ak maire bi maire bi kay xanaa moo defut li warloo ak ñun li ko dolli ko waat mooy ñun ñoo ngi ñaan maire bi ndax marché boo xam te mooy deuxième capitale marché bi nga xam lépp loo xam te war na ci bi ñu def ko ñu ànd ñoom liggéey dëkk bi ndax lépp loo xam ne sëriñ bi santaane ko kenn duñu ci lépp lu ñu tere dañ ko fas yéene bàyyi comme moom lañu sëriñ bi booleel taxaani moo nekk suñu kanam li war mooy mu ñëw ci marché waxtaan moom ndax man jàpp naa ni marché bi ba mu a am réunion boo xam te ni tey maire ñëw na fi di waxtaan ak commerçant yi kenn xamul kañ la juróom-ñaari at yoo xam te amut kenn ku fi te loolu am marché comme moo ñu war a xew a ko war a àndal ak ñëpp ne woon dañoo war a organiser waat marché bi defar ko ndax xale yi dëkk bi amuñu fu dul marché bi fi la ñuy liggéey ay ndaw lañ bu ñu tarbiyee woo ba wàcc wala ñu jàng ba wàcc ci marché bi lay ñëw di daan seen doole ba keroog ñu mën a am magasin wala ñu am faneen wala ñu tukki liñ liggéey woon dara lañ ci deful gisaatuñ leen ci nesir nañ waaye liñ nesir dara lañ ci deful ñoom daal liñ gën a man mooy ñëw yàqal la toog la di la xool loolu moom mooy seen man-man waaw loolu moom ñëw yàqal la toog la di la di la xool te Cheikh Mouhamadou Mountakha bi lakk gi amee daneen lu ngeen di mën di def na ngeen ko waxtaanee ak ñoom ba déggoo ñu waxtaan ak ñun ak ñoom Nasir teg plan def lépp lépp ñu ci def nañ ci déggook ñoom xale yii ku leen di wutal barabu liggéey da koy defar ba mu ne nojj nga yóbbu leen na mu meloon ni la mel mbaa mu raw ko nag ni ko sëñ Fallou waxee rek ndax fii kenn du yar moroomam kenn ko ne day xool rek nu mu gën a mën a jaayee def noonu ab organiser la laaj aku defar loole nag ñi la ci jàppale mooy autorité yi dëkk bi ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi nit nag bala nga ko defal marché am da ci moom nga waxtaan ak moom naka la ko bëggee waaye doo jógee fële rek yaru sa plan wala sa nangam ak ñëw di def ka fa nekk di liggéey nga xam ne yow loo fa mën di def moo fay nekk di fa liggéey kooku nga war a waxtaan ak moom ba déggoo moom ciy kàddu waaye amaa nekk ca di réunion sabri ñoo doo leen yëgal doo leen def dara yooyu moom nañ ko yooyu baaxul